maa ngi dund ak moom amour bu neex su yoree cent francs sax kañuy takk. Mhm. duñ ko yóbbu foofu jee. Mhm. dañ koy denc benn côté. kañu bëggul. moom mooy nekk seen public. non boo laalee guubi consommable rek da ngay dem te booy dem doo ko yëg. te gars yi moo wax leen benn affaire day leen jël seen seytaane yi jigéen lu mu mën pour seytaaneem jël ko na ko def.